si leen ngeen jëf mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi siifur lamb actualité lamb te di ko siifur ci télévision bu mag bii xam ne moo di Baol TV mercredi le 5 août ci atum 2020 doom seen xarit Seck Ndaanaan ñu xëy ci journalu sunu lamb bu di fay affiche am solo moo di moo ndaar xam ne leen pour sauver les de Thiès waaye ki xam ne moom moo di fekk ko jëkkatum sunu moo di ikiri ndakaaru ikiri bi nga xam ne nii quinze combat am sept victoire ak li nga xam ne ni moom moo di huit défaite moo di ikiri ndakaaru ñu xam ne ne moo di ikiri ndakaaru ma ngay nelaw ba léegi te yeewoogul ikiri ba daal yax yi jóob ni dem na bàyyi ko ci guddi gu setagul guddi goo xam ne nii daal bëtam setagul te ña ngay nelaw ba léegi waaye ki nga xam ne moom moo di ante ak tonnerre de ak ki nga xam ne moom moo di sibel ak somère ak ki nga xam ne moom moo di bët setagul ko dugg ci kërapitub sàmbalaw be du wàcc fa ko neex mukk doon seentu weer mu far kaamil kooku moo di ki nga xam ne moom di Lac de Guiers nekk ci loo xam ne nii kenn xamagul lu mu doon waaye xale bi nga xam ne mu di ca tëngee ji di ñu koy jooy ba di Papa Yade de di ko ñaanal sunu borom yërëmal ko woyofal suuf ci kawam te saral ay yaxam yaatal ba tax na sunu lambu xëy di ko rendre hommage di xam ne ne kii di Papa Yade de daal mi ngi nekk en ba atum 2000 waaye ni moom moo di guy gi ak nga xam ne moom moo di rëg rëg li boobu nga xam ne doon nañ ko laam-laamee ka jiixi jaaxa combat boobu te GFM entertainment mujj ko taxawal ñu xam ne ne daal lañ ca ci ay coono ak waxtaan ba juboo combat boobu li taxawal mi ngi toll ci plus de 399 jours yoo xam ne waxtaane nañ ko combat boobu door a taxaw waaye ki nga xam ne ni moom moo di Luc Nicolaï Enco di njiital ki nga xam ne moom moo di eh, Luc ba nañuy dellusiwaate ci 2020 2021 bi ci ay combat yu bëree bëri ba tax na combat bu ci mel ni combat Modou ak Ama Baldé nan lañ ciy dellusiwaate yeneen ak yeneen doon nañ ko waxtaane foofee nga xam ne moom di ca Mbuur ak estafam waaye ki nga xam ne ni moom di trois défaites ak li nga xam ne moom di 60 pour cent de réussite waaye ki nga xam ne moom di njiital équipe bi ñu mën a jàpp sax mooy tête de file ba kooku nga xam ne kii di Ama Baldé daan na ko doomi Pikine ji boobu ba daal ki nga xam ne moom moo di Malick ay jafe-jafe rek lay jànkonteel mën a gula jël lii di avance boole li nga xam ne moom moo di ay année blanche yu takkoo takkoo kooku moo di Malick Niang waaye ba tey ñu ñëw ñëw ci jalgati làmb fekk ki nga xam ne ni moom moo di Eumeu ki nga xam ne moom moo di Bombardier Eumeu Sène di xam ne li mu bëgg day moo daanaat ki nga xam ne ni moom moo di Bombardier ndax moom yi di dëgër te bañ a doon néegum ñax fu la neex toxal jëmale nañu fexe kàddu yi dëgër ke ci ba mel ni fondement waaye wax lii tey bu subaa nga wax le loolu day fonk ma ko ci doomu aadama te nit amul ludul kàddoom amul ludul itam waxam loolu rek la nit am ci moom nañuy fonk suñu kàddu bu baax a baax wax lii tey bu subaa nga wax lee loolu du yëfi gor du yëfi doomu aadama nañu ko bàyyi jërë ngeen jëf